ملكني الجامع يوم الجمعة ما لي وحدي اختاره وجمع إن نبينا الرسول أحمد خدمه من لا يزال الصمد للمصطفى ما لم يكن ولا يكون benn ci bërëb yi nga xam ne nii ñu ngi fiy dundal ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaareelu ajjuma tubaa eh, ñu gis waa ahlul xadim ñu fiy taxawu bernde yi ak durusum alxuraan bi ak xasida yi sëriñ Abdoulo ñu ngi lay jaar waaye ci taxawaayu sëriñ Mbacke looñ moom itam ñu min ko lool ci kër gi eh, liggéey bi tey jii yéen a ngi ci loolu ci mën a tënkal bisimilah. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. Eh, ñu ngi leen di delloo nuyu akub siyaar ah, di leen wax ne ngi ci liggéey bi ci kilifteefu sëñ Mbàkke Lo mii taxaw eh, ku xam barab bi nag ak ni muy doxe lépp lu muy def rek du la bett ndax moom bu dul màggal sax bu dul benn xew ci lii rek la nekk soxlut mbubb soxlu dal soxlu dara lu may liggéey sëñ Tuubaa lu lu xew nag ma nga ci biir ndax war moom jumaa ji lay liggéeyal moom ba tax na eh, muy màggal gu jëkk geeg màggal gu mën a doon rekk te wër jumaa ji loxo ma nga ca rawatina bis bi nga xam ne sëñ Muntaxa koo digle muy mbégte murit yëpp ndax njariñ dong la ñu yéene kon mu ci liggéey liggéey ba mu solo waaye di ko ànd ak taalibe Sëriñ yi nga xam ne fu ne ndab jóge na fa ginnaaw moom bu toggee ba noppi waaye ku baax ku ne te bëgg lu baax rek boo gisee ni muy doxee da nga ànd ak moom ci liggéey bi ndax ku gën a gis mbooloo mi ci biir wax dëgg yàlla boo reen fii juróomi nag it leen waaye nag mi ngi ci bay aw sasam ak euh, bokki taalibe yi nga xam ne ñi ngi am yéene jëm am haza nabiyullahu ma la ya'lamu illa allazi lahu lahu wa xalamu xadama xayra almursalin kon euh, mbokk yi ñu ngi ci euh, ñaareelu ma Touba ni ngeen ko gisee rek suba ak léegi ci reportage yi tàmbale ko ci Zikrullah yi ñu dem ci ay penc yu yaatoo yaatu. ñoo ngi fii nag euh, ci kër Serigne Saliou gi ci keesug Fawzayni fii nag donga tarbe yi ñoo lëkkaloog yenn ci daayira yi aju ci kër Serigne Saliou buñ ci tuddee waa fondation Sopp Serigne Saliou ñoom itam ñu ci am taxawaay bu am solo sëñ Sidi Fall ngeen bokk ci jëwriñ yi yore lépp lu jëm ci wàllum culturel. Euh, gannaaw xit ma bi ñu fekk ci waañ wi lan mooy taxawaay bi liggéey bi fii ci tënk. waaw ñoo ngi ziaraan mbokki taalibe yëpp di leen masawu te di leen baal baaluwaal àq bu baax a baax a baax tey gën a ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakhal Bachir ci tawfeex ji mu ñu defal ñaan suñu boobam yàggal ko fi lool te mu ak wér di ko ñaanal sëñ Amdi Modou Mbende Fall te di ko ñaanal sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke. waaw comme ni ñu ko baaxoo doon defee comme ci àjjuma ji weesu rek ci ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxe na ko. ku wax ndigalu jàng ku wax sikar ku wax loole lépp faaw nga boole ci berne moo tax fondation Sope Serigne Saliou ginnaaw ñu boolee yooyee yëpp itam ñu boolee ci li nga xam ne moom mooy berne ndax murit fu mu mënta nekk ci li mu war a nekk leen képp la muy ndigal te ndigal loole kon nan xam ni moom moo waral lii lépp kon mbokk bi bi ñu xëyee ñoom ci liñ dooree mooy commencé nañ ci zikar si biñ ci noppee dem nañ ci alxuraan ji ak xasida yi bu waxtu wi jotee itam mu mel ni li sëñ bi digle woon ci wàllum benn itam taxaw nañ ci seen kéem kàttan kon day mel ni loolee mooy li nga xam ne moom mooy li nga xam ne fondation bi taxawee na ko ci bisub Cheikh Mamadou Mountakha Bassirou gi nga xam ni tuddee na ko ajjumay Touba. mu ngi mel ni kon ni ko kon ni ko sëñ bi waxee rek ñaari ajjuma yi mat na kon tey ji mën nañ ne fondation bi taxaw na temm rek di xaaraat ndigal ngir ñu jëfe ko nan ko defee ci ñaari ajjuma yi. waaw nun moom dañoo nekk ay ndaw yoo xamante ni dégluwul lenn lu dul ndigal te bu sëñ wi ne woon na doonaat suba itam noonee lañ ko fa yéenee taxawalaate ndax mbooloo lañ moo xam ne nosu nañ ci nosu fi ñu war a nosoo waaye nag fexe nañ ba duñ jëfee lenn loo xam ni sëriñ bi diglewu ko te mboolem loo xam ni sëriñ bi digle nañ ko tamit duñ danañ fexe ba kenn dunu dunu ci man ndax te loolee boo xoolee suñu waanu waañu tey bii wane na ko ndax diiran bi bi ko sëñ bi jàppee yàggut waaye day mel ni mbokk taalibe seen pësteef ak seen pas-pas fexe nañ ba taal nañ fi juróom fukki mbana ci ci ci ci ci ci bi bis tey te loolee wute nag li nga xam ni moom lañ taaloon ci ajuma ji jàll te loolee day firndeel tamit di wane ni sëriñ bi lépp loo xam ne sas na ko taalibe bi rek xool na ba xam ne attan na ko mu soog ko koo sas loolee nag day mel ni mbooloo mi ci loolu képp lañ nekk bu sëñ bi ne woon suba la tamit ñu def ko comme nii ñu ko defewaat ndax ñun ndax ñun liñ am lépp ci ndigal képp lañ ko lañ ko fas yéenee def. sëñ Salim ñu ngi jaar tey waa médical ngeen di taxawu liggéey bu am solo fii ci bésu xasida bi kër sëñ Salim aju ci fondation soppee sëñ Salim liggéey bi tey naka la organisé woo ak suba léegi naka la déroulé woo. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di ziar baax jiital si nuyoo bi al Muntaxa Serigne Muntaxa Mbacke Xaadim Moustapha suñu borom yàggal ko fi ci wér. di leen jaajëfal si seet si gi ngeen seet si fondation Sopp Serigne Saliou ñu ànd ak waa zone Bawol fii Diourou Kara ak ñi seen son wet soxna Sophie seen sante ak euh, ñun kàndal ñëpp si liggéey bi waaw di leen jaajëfal baax nag si seet si bi quoi macha allah. Euh, liggéey bi tey euh, consultation bi wala couverture médical bi di moins tey naka la demee suba ak léegi. couverture bi moom boo xoolee nu nu ni jàppee bis bi waaw ndax bis bi comme sëñ Mountakha moo ko wootee. ñu ànd ko ak ñoom ànd ko ak mbokku taalibe yi comme ni nga ko defee saa ndax heure bu F3S fondation Sopp Serigne Saliou jugee euh, F3S cellule day jëw ànd seeg ñoom muy nag euh, cellule bu bu fasanti ko mu mel ni ñëpp a ngi si biir waaw brancardier aide soignant soignant infirmier médecin ñëpp a ngi si biir ànd ko ak ñoom si si liggéey bi donc noonu lañ ko defee comme ni nga ko daan defee saa su ne ko defee sëriñ bi woote na. jaarle ko sëñ Cheikh saalo sëñ Cheikh tàbbal ñu si liggéey bi ñun ñu fo yéene ko ànd ak ñoom waaw noonu daal ñu ko doon defee saa su ne moo tax ñu takkaat suñuy laxasaay ànd ak ñoom liggéey bi quoi waaw. boo ñu doon defal benn bilan provisoire tey subaak léegi li ngeen jot a liggéey ak ya ca aju yan cas ngeen gën a consulter. waaw boo xoolee comme cas yi ñu ëpp lu ñu am rek waaw ñun ñu si bëree bëri bëri jafe-jafe asthmatique lay doon wala ay ay ay ay ay ay ay ay borom douleur gastrique yi. wala cas Cefalé ñoom lañuy am souvent fii donc moo tax bu ñuy bu ñuy def ndaje yi mel nii dañuy indaale lu méngook li ñuy soxla saa su ne comme la ñuy soxla boo xam ni ay ji képp mbokk taalibe bu fi am jafe-jafe ñun ñu mën a am jël suñu taxawaay jël suñu matukaay taxaw si taxaw si moom ba xam ni li muy aajowoo yëpp dinañ ko mën a euh, dimbali fii ñu féete su demee nag ba xam ni vraiment day da moo ngi présenté signes yoo xam ne dépassé nañ sunu secteur bi niveau bi ñu ñu jël ko xool nun ko rawalee si kër docteur ngir ñu mën ko def pour une meilleure prise en charge waaw loolu daal la ñuy doxalee fi si si si si cellule santé fu mu mën a féetet xel comme ziara ba si journée sëriñ bi hmm. mel ni jamono yi jamono yi tàngoor la mbokki taalibe yi gis na ne li ëpp ci ñoom itam euh, ñu ngi mel ni luy xaw di xëm ci coono yeeg yooyu benn conseil bu ndaw ndaw rek euh, ñu door a yëkkati euh, kàddu yi incha allah. waaw waaw période bii moom comme ni nga waxee saa su ne rek période tàngoor moom da naan la mën di naan ndox del naan. waaw naan ndox ndax da lay dimbali waaye leneen li moom mooy képp koo xam da nga am looy sooxaale muy jàngoro moo xam asthmatique nga wala nga am jafe-jafe nga am garab gooy naan dañuy ñaan boo dem si mbooloo mel ni nga yóbbaale ko ndax yóbbaale ko day taxaw tey ji nga fagaru dara xewee doo fa toog di xaar waa kër docteur ndax xëy na ay la yéen waa kër docteur dinañ ñëw kër xettali la waaye nga nga fagaru sa bopp moo gën ndax boo yore sa pompe tey xam ne asthmatique nga soo jaaxle woon rek dugg sa mën a xëcc say say say pompe waaye bu dee yoroo ko moom mooy jafe gi waaw kon yooyu yëpp dañ ci wax mbokk taalibe yi rek ñun bokk liggéey bi surtout waa fondation Serigne Sall xam ne fu ñu féete ñun seen wet bu ñuy jógati si mel ni ku si nekk xam nga sa niveau santé fi mu toll xam nga say kii ngay ngay fagaru selon say say say li nga xam moom mooy say sàkk say yitte daal voilà ñoo ñoo ngi leen di santaan nag bu baax a baax على الجميع واختفته الرسل xadamu ahmada ala riqaabi man madaw wa man mbokk yi ñun ko ànde woon ak yéen suba ak léegi rek ci euh, ñaareelu ajjuma Touba ci ndigalal Cheikh Mouhamadul Mountakha dem ci ay bërëb yu yaatoo yaatu ñoo ngi fi nag ci Daaru Xuddoos ci euh, buntu kër sëñ Moustapha Ndiagne fii nag bu ngeen gisee ñii fi teew di dundal euh, liggéey bi mooy waa Ahibaahil Xadim ñu koy dundal ci alquran jàng xasida ak bernde ak lépp loo xam ne nii rek day daal di yéwénal ndigal kon sëñ Cheikh Beye ginnaaw bi ñu ziyaaraate bu baax a baax amaat nañ mbégte fekk leen fii ci euh, kër sëñ Moustapha Ahibaahil Xadim di taxawu liggéey bi euh, ci ñaari ajuma yi ajuma jee jàll na jojtee ji ngeen euh, xëyee ko ci alxuraan ak lépp loo xam ne ni rek aju na yan kàddu nga ñuy tënkal ci liggéey bi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbooleem jullit yi ñuy seetaan ak ñu ñuy dégg ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp ci turu jëwriñ ji nga xam ne moom la sëñ Moustapha joxoon ndigal lii muy Baye Serigne Diop Muxtaar mi nga xam ne moo jiit mooy président section bu Ahibahil Khadim bu Touba ak soxna ak waajuram bu baax wi di soxna maam Bousso Mbacké nga xam ne mooy itam moo jiite soxna yi ci seen ndigal ci la ñu taxawalee liggéey bii moo tax liggéey bii bi ñu bi Baye Serigne jotee ndigal ci sëñ Moustapha jokkoon ak section yëpp ñëpp jàpp ci liggéey bi fii ma waxee yow boo boo dugg boo xooloon mbooloo mi section yi ci senegal ak ba ci ba Gambie sax xëy na du ñàkk ko fa ko ñëw waaye mboolem regroupement yi ma tudd léegi ñoom ñëpp kenn ku ne sa sa mbooloo ngi ci biir ndax sëñ sëñ Moussa Mouhamed daf ñu daf nañu fépp fu ngeen dig dig déggee ndigalu sëñ Mountakha xam leen ne mooy sama ndigal lu ngeen ci man def leen ko te kenn wérante wu ne lii moom ndigalu sëñ Mountakha moo tax nag nun bu ñu ci mënta man itam dañ fexe ba suñ kenn kem kattan rek moo tax nag éducation bii nga xam ne man moom laa jiite euh, ca huit heures lañ xëy si ñu xëy see nag dañu daal di jublu ci sikar si nga xam ne moo doon digal li nga xam ne diggante huit ba dix heures moom sikru lay lañ ko def bi dix jotee nag lañ ay arrêté lépp sikar si ñu doon def jublu ci njàngum alxuraan bi njàngum alxuraan lañ nekk ba une Euh, ñi pause biñ posé nag ba gont siwaat nag dinañu dinañu waat nag njàngum alxuraan mi ànd ko couleur yi nga ne ñoom ngay dégg noonu kon brousse bi ak animation bi ñoo ànd ci soo ba tey sax nag ñoo ànd ndax même gars yi bu ñu wàcce kaamil fi mu toll nii fii may wax ak yow nañ loo jege ñeent fukki kaamil ci suba gi rek ngoon gi ñëw ñëwagut kon nag euh, Euh, noonu lañ ko fas yéene ànd ak mbooloom yëpp rek euh, ba ba ba keroog sëñ bi yeewee rek ko daan def rek kuréel bu jóg rek sa morom toog kuréel yi bare bari nag ñëw nañ yoo xam xëy na mën ñoom ñëpp sax duñ mën a jàng ndax kuréel la bari ndax ay baalu kuréel ak benn yooyu nag ñëpp bëgg a jàng dana xaw a kenn kon dañ la jox nga rek waaw noonu daal lañ ko fas yéene ànd doxe ba xasee nag moom li mu li ñuy jàng ci takk wax dëgg yàlla mënuñoo xam nu mu toll waaye alxuraan moom lim boobu ma lay wax moom moom ci lañ toll ñeent fukki kaamil daal xam moom boobu lañ toll daal waaw recensé wu ma lépp nag li li ma li ma li ma estimé alal wara faddalahu mawlaahu nabiyuna ahmadu ma daanaahu abdullah daa baaxin lahu adnaahu rasuluna kon mbokk yi niñ ko àndee ak yéen rek ñoo ngi fii ci daaru xuddos ci biir mbaar mi jàkkaarloo ak euh, jàkka sëriñ Mbàkke Madina fii nag xam ngeen ne waa wilaaya ñoo fi féete ñaari ajuma yëpp di dundal euh, ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha niñ koy defee ci bépp ndigal ci kanam euh, ki nga xam ne moo di sëriñ Ousmane Mbàkke Euh, mi nga xam ne nii moo fi teewal mboolem ahlu Daaru Xuddus kon sëñ Ahmadou Ndiaye ginnaaw bi ñu ziyaare fekkaat nañ leen fii tey ci kanam kilifa yi ngeen di euh, tàbbiwaat ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha liggéey bi ni mu nosoog li ñu tënkoo lan nga ñu ci mën a baaxee. sallallahu ala nabiyil karim sayyidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa ashabihi wa xadimihi zawi ridwani wa tamkin bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi yëkkati sunu kàddu ci turu jëwriñi liggéey bi di sëriñ Ousmane Mbacke Gaynde Fatma muy yëkkati kàddoom ci turu borom penc mi te nekkal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha di sëriñ Ahmadul Muxtaar di yëkkati sunu kàddu ci turu ki doon liggéeylu di Cheikh Mouhamadul Mountakha eh, di jëwriñi borom Touba. ñuy ñaan suñu borom wan nu kéemaanu gudd fan ci jëmmam euh, liggéey bi ginnaaw bu ñu jotee ndigal li mu bàyyi ko ci sëriñ bi danoo daje nas nuñ koy defee mu am ay kuréel nag yuñ ko séqal ngir rek gàttandu ñaanuk sëriñ bi yaa rabbi ij'alil muridina maa fi husnikal hasini wa samla ijmaa mooy daje taalibey Sëñ fii nag Mafatihul Bichri fédération bu mag la bu tasaaroo ci biir réew mi Safinatul Amaan bu Kéré Mbay muy waa kër Sëñ Maxtaar Mbay Kéré Majmaun Nurayni di daayira ñaari guddi Ndakaaru ak wilaya di fédération des groupements religieux et culturels des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba ñoo daje fii tey ci daaru xudus li rabbil alamina marshal ahmada fas yéene nag jëfee ndigalul sëñ tam yëkkati ci ay kàddoom wax yéeneem ni moo doon tàmbali ko ci ajjuma jeenu jàll ba ca muharram waaye mu wax ni doye dig doomu aadama ak tab jeeg yitte yi ak yërmaande ji mu ëmbal bindee fi tax mu ni loolu bari na waaye na ko yóbbu ci ñeenti ajjuma yi waaye lam xalaatoon ca bu njëkk bayit it la ci xalaataat ba ni kon ñaari ajjuma yi yi ci des nag mu bàyyi ko ci sunuy loxo kenn ku ci nekk xool noo cay taxawee ci nu dëppoo ak bëggam moo tax yi tey jii ñu daje fii ci mbaarum daaru xuddoos ginnaaw boo xamante ni nag fedd li nañ sunu jaayante ak Sëñ Tuubaa muy dégg jaayante te duñu xàcc diggee itam te duñu wor doon ay gor ba pare nangu doon i jaam di ko waxe di ko jëfe di ko niru nirulu nag bëggulu lu bari itam na mu fu sori moo tax nu attan cee dee moo tax tey jii ci suba ci 8 ba léegi noo ngi fii ci mbaar mi di jéem rek dabu bëggug sëñ bi lam ci fas nag moom moo ko xam lam ci yéene itam moom moo ko xam waaye nun nu ngi ci biiram te wóor na ni bu amee ak bëggam nun nu am sunu bëgg te loolu la Cheikh Ibrahima Fall doon wax suñ yaaram bay rek ni ko su ngeen amee ak bëgg nu ngeen di def suñu yaaram ni ko ah bu fekkee dana bëgg lu mel ni mbubb da dañuy dem ca marché bi te ni wutum njëg dem ca marché bi xool ba gis tiise bu nu neex ñu dagg ca mètre ya nu jot dem ci téer mu dogal na ko ñu sol mu ni ko ah, yaaram man de wóote na ma ak man de boo ma amee bëgg damay bàyyi ba sëñ Bamba bëgg ma dugal ko sama bëgg ci biir bëggam bu amee ak bëggam rek ma am suñu bëgg ñun suñu bëgg lépp ngi ci biir sëñ ban ko joxee suñu bopp rek booba lañ ca noppi woon lu nu fàggul rek loolu baax cofeel gu tar gin am ci moom nag moo tax coono coonab liggéey bi duñ ko yëg moo tax jëfe ndigal yi itam waxtu wu ci nekk rek moo nu gënal yëngutu ci lu ànd ak ndigal amul lu ñuy tànnal suñu bopp moo tax lu mu tànnal rek loola rek lan gis ñun façon takkale lonet lañ li yëngu ci suñu wet amuñu ci soxla fi nu jëmale rek foofu lañ jëm loolu daal lañ lañ yendoo fii ba di ñu jaww toog sax kuréel yëpp nag kenn ku ci nekk li nekk ci biiram ci ay kuréel yëpp xajuñu ci bés bi waaye ñenn ñu ci nekk rek dañ cay wootu ñu ca des ngir mandargaale ko ànd bi loolu daal mooy li nga xamante ne nii nekk nañ ko fii ak mboolem fu taalibe bi bàyyi ko rek ñu ngi fi di sant sëriñ bi bu baax a baax nag di ko ñaanal suñu borom wan nu kii ma nu gudd fa jëmmam ndax xam nañ li muy def moom xam nañ ñor gi mu ñor xam nañ itam yitte jëm ci def xam nañ itam yërmaande jëm am la parce que dangay wax ni ku dul yàlla mi bind jaam ñi ëppoo ko yërmaande ci jaam ñi te li muy def lépp suñu njariñ moo tax góor góor góorgóorlu bu baax a baax di ci soññ nag mboolem taalibe yi Sëñ ak fon fi manti nekk rek yéene jooju ak pas-pas boobu bii mu am ba ca Muharram ja nu nit ñu jéem ci suñ kéemtalaayal kàttan ma doon wax rek ni julli nii rek la di dikkoon ci ñun kersaa ko fi bàyyi ndax ba yonent bi demee suñu borom jox ko juróom fukki julli muy baagante saa yu ñëwee ci yonent yàlla Moussa mu ni ko dellul ba mu des juróomi julli ya mu ni ko dellul mu ni ko rus na maa dellu kon kersa ko fi bàyyi sëriñ bi tam xëy na yërmaande ji moo tax mu def ko waaye naafile yaa ngi fi waaw mën nañoo mottali yéene ji ba ca muharram ja te doon wàññi dara aw yiw rek la ñuy jëlal fii daal mooy fiñ fi nekk ci ndigalu suñ kilifa yi nga xamante ni moom la ñu àndal di sant it suñu Ousmane bu baax a baax ci taxawaay bi ak yitte ji ak yëg gi ak safoo gi ndax moo nu man ci liggéey bi bu baax a baax liñ ci bëgg rek loolu la ci bëgg ngërëmal sëriñ bi rek waaw loolu rek lañ ci bëgg yàlla nun suñu borom defal lu kawee suñu jot barakati rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam barkeb sëriñ Tuubaa barke penc mi ak borom walanbiya faddalahu man arsala basarani ma rida muhammadu sallaa wa sallam jërëjëf mbokk yi kon ñu woy ak yéen rek niñ ko àndee ak suba ak léegi ñoo ngi fii ci waa Fathul Fata di soppee Asaba ñoom nag kenn dootu leen présenté ñuy dundal ndigalal Cheikh Mouhamadul Mountakha ci suba ak léegi ni ngeen ko gisee ci alquran xasida ak bernde ñu jox sëñ Gora Dieng waaye nag ci njiitu Serigne Moussa Diagne mi nga xam ne mooy jëwriñ ji ak mboolem ñu mu ko àndal su ko defee sëñ Gora ñu ngi lay ziare ñaari ajuma yi mel na ni taxaw ngeen ci taxawaay bu am solo loolu ñuy tënkal rek ci jëf ju am solo ji nga xam ne def ngeen ko ci ndigal Cheikh Mouhamadul Mountakha. asalaamaaleykum waaw ñu ngi leen di nuyu te di leen ziare bu baax a baax euh, ci turu sëñ Moussa Diagne la ni yëkkatee kàddu yi euh, di euh, sant yàlla bu baax. Euh, ci di ci euh, bis bi nga xamante ne bii suñu borom euh, defal nañ ci tawféex ñu ñëw fii ànd ko ak waa Touba. muy bis boo nga xam ne ñaareelu ajjuma bi nga xam ni sëñ bi joxoon na ci ndigal ñu taxaw ko Euh, ba defoon bu njëkk bi tey jii di ñaareel bi euh, ñëw gin ci ñëw nag sant nañ ci yàlla bu baax waaye euh, cant gi ñu ciy jiital Serigne Mountakha Mbacké Al Bachir xalifatul am li tarixatil muridiya moom bi nga xamante ni bii lii lépp mooma te ndigal lii mu joxe yëkkatiwu ko lu dul rek taalibe yi am ngërëmal Serigne tubaa ak daje dajeeg tawfiix Serigne Touba kon nag ñu ngi koy sant di ko ñaanal suñu borom gën ko fee yàggal gën koo wéral ndigal li nag ni mu ko yëkkatee woon rek noonu lañ ko déggee noonu lañ ko jëfee def nañ suñ kamtalaayal kattan suba ba léegi ñoo ngi fi ànd koog suñ jëwriñ ji di sëñ Moussa Diagne ak mboolem ñi nga xamante ne bii ñoo nekk fii di soppe yi di daayira fatul fata njiitul Baye moo taale seen mi nga xam ne njàngum alxuraan mi suba ba léegi moo ko jiitee ñu ànd ko ak moom ak mboolem yeneen soppe yi nga xam ne ñoo fi nekk fii tey suba ba léegi wàcce nañ fi ñaari kaamil eh, jàng fi li mu xasida kuréel bi léegi lay soog a daaneel ginnaaw eh, nii bëgg a noddu tàkkusaan lépp rek ñu def ko jëmal bi ngir jëfe ngir jëfe eh, ndigalul Seex Mouhamadoul Mountakha Euh, ñaanal suñu borom nag euh, bàyyi ko fi wéral ko euh, ceen fekk ko ay déwén yu bare bare bare incha allah kon mel na ni ñaari ajuma yi mat na tey kon yéen a ngi xaaraat ndigal incha allah fas yéene koo jëfe rek ci lépp bàyyi ko ci sëriñ bi waaw murit moom euh, ndigal rek lay déglu te ndigal moom jëfee rek itam la sant kon nun moom nu ngi déglu rek ak xaar sëñ bi euh, lépp loo nga xamante ni bii woote waat na ko rek ak lu mën a doon rawatina bis bu mel nii dañ ci dellusiwaat taxawaat ci sunu kéemtalaayal kattan gën a yokk sunu laxasaay ak sunu sunu sunu pas-pas ndax xam na ni lépp lum ñuy digal su ba ngoon guddeeg bëccëg euh, njariñ rek moo ci nekk ak taw yéeneenu tawféex tu Touba ni ma ko waxee léegi kon fi mu nekk nii tey jii bu ni woon ajjuma bii di ñëw nan ko defaat nin ko defee bii weesu ak bu tey ji bu soobee yàlla ak yonent bi nii fii la ñuy jullee suba àjjuma bii di ñëw incha allah ngir jëfe ndigal loolu ndax xam na ni suñ ko jëfee itam njariñ rek moo ñu ciy fekk incha allah waaw li ñuy daaneele suñ kàddu daal moo di ni ñu gën a jàpp sëriñ bi gën a euh, tënku ci ndigalul sëriñ bi euh, di sëriñ Muntaxa Mbàkke mii ndax euh, ay kàddoom mooy kàddu yu sëriñ Touba kàddu yu sëriñ Touba mooy kàddu yu sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam nag wa maa yantiqu anil hawa wax mukk ci teeyaayu bakkanam kon nag sëriñ bi nan xam ni lépp loo nga xamante ni lu ñuy digale suñu njariñ kese képp moo ci nekk lépp lum ñuy tere nag du nan fexe ba bu ñu ci seen sax bam ñu koy tere ñu gën a góorgóorlu gën a nosu gën a nekk benn gën am ak takku ngir liggéeyal sëriñ Touba ndax suñu liggéey ak sëriñ Touba kat suñu njariñul tey ak ëllëg ci la nekk kon nag loolu moom la ñuy soññee mbooloo mi nga xamante ni mooy mbooloom daayiratu fatul fata xam naa dañuy gàttal nag waaye tey daara ji sant yàlla moo ci war te ñu ngi sant ñëpp ndax doxin wi rafet na waajal gee matale na ndax jëwriñ sëñ Moussa Diagne mii bi demee ba jub ñaareelu ajuma bi dafa yëkkati ndigal teg ko ci suñu kaw ni nan taxawu bis bi def suñu kemtalaayal kartan depuis boobu ba léegi nag ñun ñëpp ñoo bokkandoo ci waajal bis bi ba tax mu demee nii mu demee tey jii kon nag ñu ngi sant jëwriñ ji itam bu baax di sëñ Moussa Diagne ndax liggéeyam liggéeyam liggéeyam ci daara ji ñëpp xam nañ ko wax dëgg yàlla moom moom moom moom yàlla rek lañ koy bàyyi sëriñ mu fayal ñu ko ilay yaqaadallaahu yawmal jumaa maaliya min baaxi xadimin jamaa mallakanil jaamiu yawmal jumaa maaliya waxdi xtaarahu wa jamaa mallakanil jaamiu jaamiu yowmal jumaa maa li wax dixtaarahu wa jamaa